gan gi euh, Mamadou Sy Albert euh, journaliste analyste politique doyen ñu lay nuyu am mbégte dalalaat la ci matinalu Rewmi FM. maa ngi lay am naa mbégte toujours di ñëw waxtaan ak yow. jërëjëf alors doyen ñu tàmbalee waxtaan wi ak euh, président Macky Sall mi ñu ne laaj na xalaat euh, Guillaume Drago professeur français de droit public jëm ci euh, ñetteelu candidature am ndax mën naa nekk am déet ñu ni kooku nee na ko waaw mën nañ caa jàpp ni moom fi mu ne président Macky Sall dafay samp ndëndam ci élection yi ñu dëgmal. waaw loolu moom xel mën na ko mën na ko nangu bu demee bay laaj ki nga xam ne loolu jàng loolu. day liggéey euh, day firnde daal que dafa bëgg a xam ndax euh, am na am na droit euh, nekk candidat loolu nag suñ ko waxee wala buñ ko waxul sax day firnde daal que Macky Sall mu ngi ci tànk nekk nekk candidat bu bëgg nag préparer opinion bi léegi nag lu ci xaw daal mooy que lu tax ñi nga xam ne ñoo ñoo bind constitution Sénégal ñu ngi fi euh, ba tey ji lu tax laajul ñooñu bon lu tax laajul euh, CEDEAO lu tax mu dem France defe na loolu aussi jàngaat bu ñu mën a am mooy que France tey ji boo gisee assemblée nationale am ñu taxaw ne Macky Sall warul euh, nekk candidat même ci pouvoir bu Macron am na ñu àndul ak ci troisième donc loolu pexe aussi lay seet Euh, pour que mu am ñu ko jàppale foofu ci ci France. Mmh. ñu des ba tey ci ñetteelu candidature boobu wàllum éthique mu mel ni tey euh, si am na wàll ci mbir mi ñu bëri ñu ngi si doon sukkandiku pour wax ne loolu rek doyoon na ngir président Macky ba bañ a sampaat dëndam ndax moo joxe woon kàddoom ne pare na ci depuis 2019 wax ko itam ci livre am Sénégal au cœur wàllum éthique itam tey luy palaasam ci taxawaayu président Macky bi. Ah, lu su Macky Sall nekkee candidat moom ba déposé loolu dafay euh, du du li nga xam ne kàddu bi mu jëloon muy falu ak bi muy bind livre yi nga wax ak euh, li mu jotoon wax respecté wul kàddu loolu loolu moom euh, dina am problème bu rëy ndaxte bu defee candidature loolu day weddi kàddu bi mu joxoon hmm. bon beneen aspect bi tamit nañu war dañu war a bàyyi xel ndaxte même bu demee seeti consulter expert français bon mën nañ ko nangu wante bu ñu fàtte ne que même ñoom tubaab yi surtout en France euh, kàddu dafa am solo moral dafa am solo mm. am na loo xam ne lii boo demoon France bi mu sosoo ba léegi am na kàddu bi nga xam ne kenn kenn kenn kenn du ko nangu nga nga nga waroo ak sa kàddu mm. muy seen euh, enseignement muy seen fonctionnement ñoom ñëpp Europe yëpp ci cadre la ñu euh, weeru donc africain waxaatuma waxu africain ñun ci cadre la ñuy euh, soso suñu société bi puis mooy suñu éducation ku amul cadre mënoo éduquer kenn donc kaddu dafa am valeur def na président war na xoolaat daal loolu bañ ko dal bu ko dalee moom image am du du baax ci sénégalais yi. wax waxeet wax waxet baaxul. Hmm. bu dee de de président nga wala nga nekk leneen daal kàddu bi nga xam ne lii kenn forcé wu la nga wax ko waxaat ko Euh, da nga war a sàmm sa kàddu. Mhm. alors euh, euh, doyen ndax mën nañoo jàpp itam ni état gannaaw ba mu lànkale Ousmane Sonko condition yi mu teg ci jàmmarloo la ñu jëm ndax njiital Pastef ci pàttali ne woon na nañu ko may mu tànn yoon bi mu bëgg aw aw fa mais aussi ni ñu koy wëree ndombaak ay takk der ci këram bu waree dem tribunal nañu ko bàyyi ñu ni état gàntal na ko loolu est-ce que mën nañoo jàpp ni kon ci jàmmarloo la ñu jëm bu loola amee itam. Euh, fan la mën a mujj. waaw bu ñu continuer nii moom. Euh, lu lu lu wane na depuis deux mille vingt et même situation la ñu nekk dañuy jaay Ousmane Sonko doole tey jii euh, lu ñu tëj ci militant parce que kenn xamul ñaata lañ Ousmane Sonko trox nañu wax na waxaat loolu nag mu ngi wéy et plus muy wéy plus tension bi di gën a yëg. donc euh, ñam lu wóor ba wóor xam tey jii lu ñu mën a jàpp mooy que dañu bëgg a euh, Ousmane Sonko bañ a participer léegi nag fan la yoon nar a jaar ba sanctionné ko loolu bu amee su fekkente Ousmane Sonko yoon euh, jël na dogal nekk du mën a participer loolu moom coow lii mu ngi suñu kanam xamuñu nag sénégalais yi ban taxawaay lañ nar a taxaw mais lu wóor ba wóor euh, suñu Ousmane Sonko suñ ko teree participer ci présidentielle bi dina am euh, violence bon violence bi aussi dina gën a yokk ndaxte tant que euh, majorité bi mooy Ousmane Sonko bañ a bañ a participer bon waxaatuma nag buñ ko buñ ko tëjee Euh, loolu aussi coow coow bu rëy moo nar am ci ci Sénégal. Mhm. alors beneen mbir mi soxal Ousmane Sonko mooy coow li dox digganteem ak euh, Idriss Seck gannaaw ba ko ko seeti jee ci weeru kor gi euh, ajjuma wax na ni kon Idrissa Seck moo ñëw toogaanu ko yëgluwul ak yeneen ya topp loola mel ni lu naqadi Idrissa Seck boobu débat ndax du moom njiital parti réew mi moo ci mun a ñàkkee crédibilité buñ sukkandikoo ci li Ousmane Sonko wax. Idrissa Seck tooñ boppam. de sec mënul jël euh, soldalam ci ci fajar di dem seeti Ousmane Sonko euh, ñu toog waxtaan mu génn wax ji tey ji kenn xamul lu tax Idriss Seck dem fa lan la waxtaan ak Ousmane Sonko lan la lan la ñu jàpp lan la dig Ousmane Sonko lan la Ousmane Sonko dig euh, Idriss Seck kenn mënuloo wax ne lii lañu waxtaan lii la ñu jàpp ci ñaari chef de parti nekk candidat di di xuloo di xiiroo ak ŋaayoo bon loolu Idrissa Seck rek moo ci ñàkk ndaxte Macky Sall nee na wax na ñëpp dégg Macky Sall ne moom tinul xamul. Euh, ay négociation négociation bon loolu loolu Idrissa Seck lay weddi bon gisee Ousmane Sonko aussi xam na ne que piège la woon bon euh, li muy wax euh, le tey jii. Euh, tànk Idrissa Seck bi bon kenn xam lu tax mu dem ci ci Ousmane Sonko. donc hmm. Idrissa Seck mooy mooy ñàkk. bon léegi nag euh, mënoon na bañ daal euh, dox li nga xam ne lii amul amul bopp amul génn mag nga nekk candidat ngay médiation te xamoo foo jëm xamoo lan li jàpp. ngeen toog di weerante bon loolu baaxul ci image Idrissa Seck. alors est-ce que tey bu médiation demoon bay am sax Idrissa Seck euh, nit la ku ko mën a def ndax tey euh, am na daal lu ko may mu mën a dox tànki jàmm bu ñu xoolee un posture am mais aussi jaar-jaaram ci wàllu politique euh, yenn saa yi mu daan dem ci président Abdoulaye Wade ñu bari weddee ko ci ci yooyu ay audience su guddeeg yeneen ak yeneen yi am ci carrière politique am yëpp. waaw mën nañu wax ne que Idrissa Seck moom mooy dugal boppam. ndaxte boo xoolee euh, temps Abdoulaye Wade temps Macky Sall toujours moom mooy jël ay initiative yi nga xam ne du ci génn toujours confiance la nit ñi amatul ci Idrissa Seck parce que euh, ni muy doxalee euh, dafa bari dafa bari ay ay calcul Ousmane Sonko soo gisee aussi situation bi mu créer ni mooy que finalement ñi ñi ñuy jàpp que Idrissa Seck dafa bëggoon manipuler Ousmane Ousmane Ousmane Sonko ba am lu muy seet lu leen lay seet nag est-ce que pour arranger boppam la wala pour arranger arranger Macky Sall bon kenn xamul donc Idrissa Seck ci jeu ni muy defee politique daal euh, moom moom muy ci perte. muy temps Wade comme temps euh, Macky Sall tey jii bon confiance bi euh, soo soo moytul. du amati confiance ci sénégal yi. même ci way politique yi mu sekkal làng gi ndax euh, Ousmane Sonko ci ay kàddoom loola la mel nii lu lu loola lay junjoo. ñàkk confiance Idrissa Seck alors doyen ñu wax ci 30 euh, euh, mai bés bi nga xam ne ci la ñu jàpp euh, dialogue politique bi nekkoon ci lay ubbi booba jaloog moom bu ca ki gën a fës ci opposition bi bokkul tey mu am aussi jafe-jafe bu rëy ak état bi bu ci bokkul est-ce que mën nañoo jàpp ni dialogue la am nañu ne dialogue bu usmaan Sonko demul du dialogue. non du nekk dialogue du Ousmane Sonko rek ndaxte boo xoolee Yewwi Askan à part taxaw ñoom ñëpp nee nañu du dem boo xoolee société civile bi bi nga xam ne am na solo loolu pour ci ci élection présidentielle nee nañu demul donc loolu dialogue bi euh, du du du du dialogue léegi nag lu tax mu mu demee noonu defe naa doxalin président bi euh, moo moo am ay difficulté ndaxte président de la république euh, mënoo wax ne damay woote jaloog te waxoon nit ñi terme de référence yi ci lan ngeen di sukkandiku pour waxtaan ban conclusion ngeen di xaar ñi kan moo war a participer loolu soo su dafa waroon toog au moins togg togg jaloog bi moom ak opposition bi civile ñu am au moins consensus ñu ne lii la ñuy waxtaane wala su dul loolu mu ne nañ def dialogue sans tabou question bu ñu bëgg nañ ko poser mais l'essentiel mooy que ñu d'accord ci euh, kan mooy diriger dialogue bi dialogue bi ñaata fan la et cetera et malheureusement président lu ñuy gis ni mooy que dafa dem woo dialogue pour pour am na objectif bi muy seet. Hmm. mooy xar opposition ñaar. loolu moom moo nar a xew am na ñu nar a dem dialogue am na ñi nga xam ne du ñu bokk ci dialogue bi. kon dialogue bi moom la arrangé. mais moom la arrangé parce que boo xoolee même ci biir APR wala même nga jël benn kenn mënula wax ci biir APR wala benn lan mooy terme de référence. te yow yaa yow nar a nekk candidat majorité présidence ñi nga àndal xamuñu sax dialogue bi euh, lu tax lu mu ëmb waaw waxatuma nag opposition bi donc moom moo yore feuille de route am di def euh, comme ni mu koy defee moom mooy président de la république mooy président du dialogue bon loolu loolu fu ñu toll nii nga nekk ci crise démocratique nga nekk ci crise politique mais kenn du la wóolu parce que ñëpp dañu jàpp ne dafa calculer am na objectif Eh, eh, loolu ñeneen ñi lu tax demuñ parce que dañu bañ euh, manœuvre bi bon ñu ñu ñu leen ci ci dialogue bi. alors jamono bi muy wootee dialogue F24 Euh, mel ni M23 bi fi amoon ma ngay dajaloo fas yéene xeex lu mel ni ñetteelu mandat ak yooya euh, ñuy xaar itam foofa jàmmaarloo ci wàllu politique euh, lan nga yaakaar ne ci la opposition bi ak société civile bi bootu ci F24 mën a sukkandiku ba xëy na weñ loxo président Macky Sall mu dellu ginnaaw ci ci ci ci ñetteelu candidature bi notamment ak yeneen i ponk yu itteel opposition bi tey. ah lu mën a am la ndaxte dialogue bi dina am wante. force vingt quatre bi ak euh, opposition bi nga xam ne demuñu dialogue ñu ngi xaar ñu xaar dialogue bi bu pare Macky Sall dina jaakaarloo ak euh, force vingt quatre ak opposition bi donc loolu nag épreuve moo mooy bu ñu génnee ci affaire Ousmane le procès de Ousmane Sonko la jaakaarloo bi dina am diggante majorité bi ak euh, F24 ak opposition bi léegi nag rapport de force la rapport de force moo nar a am lu amoon 2011 mën na amaat ndaxte deux mille ab euh, Abdoulaye Wade dafa mujj retirer projet constitution bi mu yóbbu woon assemblée. Hmm. mais rapport de force aussi mën na tax Macky Sall ñu tere ko mu participer ci élection présidentielle loolu mën a am la. Hmm. defe naa même dialogue bi muy de président def nii euh, def dafa sóoraale loolu. bëgg a wàññi doole F24 xëy na. voilà wàññi doole opposition bi balaa muy jàkkaarloo ak. Euh, F24. et loolu stratégie la bon mën na réussir comme mën na mën na échouer. waaw hmm. ah, vu que ñu bari demuñu ci dialogue bi am na itam ñu jàpp ne dialogue bi jaru ko ndax lañ waxoon deux 2019 ba tey mi ngi fi tegee kenn appliqué wu ko. waaye loolu loolu day day firnde que dialogue bi président deful dialogue deful dialogue parce que mille 2018 tiré nga euh, amoon na ay conclusions yow appliqué woo déglu waxtaanoo ak sa opposition. nga xaat ba ba mu des euh, moins d'un an nga ne da ngay def jalo kenn du la gëm hmm. euh, def naa le le euh, dialogue deux dix neuf bi nag moo rattrapé tey ji président erreur yi mu defoon depuis bi mu nekk ci nguur ba tey ji loolu moo ko dabaat. Hmm. Eh, eh, loolu pour mu génn ci dina dina dina jafe dina lool. du yomb ci moom jërëjëf doyen Mamadou Sy Albert amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi FM tey di la gërëm bu baax encore ci sa disponibilité. jërëjëf Fatou. jërëjëf Fatou.